tey man soxna Batoor mu Sëriñ Béthio moo woo eh, média yi ngir am lu mu bëgg a yëgle ndax kat luy jot jot na te lu ëpp tuuru mm, dama génnoon sànq ma jékki-jékki woote sama kër ndekete coow dafay am mm, ndekete moom ñii nga xam ni ñoom la ñuy wax njabootu sëriñ bi muy góor ñi njabootu sëriñ Béthio góor ñi ñu mag ñi ci njiitalu ki ñu naan Fam Sàmb ñu koy woowee sëriñ Saaliw Gël Tàppe ñoo ñëwoon tey sama kër gi nga xam ni fii la ma sëñ Béthio dël maag sama njaboot ma ne fi ñu ñëwoon fii ci kër gi ne dañu fi dugg ñu ne len soxna si nekkuñu fi nekku fi ñuy saga ak a muy mom ak rakam yu goor yi nga xam ni ñoo fété mak ñom ñëpp eh, indi fi attroupement di proférer ay menaces ak di saga, bay di def ay menaces de mort xamna nak lolu mom ki nga xam ni dund lolu te dig taalube ne ci kër gi ma tek ko fi mom lañu fi fek mom dina wax waaw dem nañu ba dóor ko waaw di leen wax ni nag lii day situation boo xam ni boo boobaag léegi mi ngi perdurer te mënta ñàkk nag ñu saisir kii de droit ndax euh, Sénégal dañ koy wax naan réewum jàmm la état de droit la du nag euh, lu neex waay def ba tax na boo boobaag léegi moom ñu ngi subir ay ay ay provocation yoo xam ni moom ñi ngi ne tekk waaw ñi ngi wax ay wax yu ñaaw jëmale ci soxna Aida jëmale ci ñun te boobaak léegi ñu ngi ne tekk waaye nag lu ëpp tuuru ndax antécédents yi li jiitu mooy gannaaw bi sëriñ bi dogal yi am daaw ci le 7 mai 2019 avant Korité gi deux mois après moins de deux mois dañ ñoo woo di ñu laaj lan ku ne lan la yoreel sëñ Béthio fekk na ñun ñu ngi koy jooy ba tey ku ne loo yor ñu ne déetawaay ñu jékki-jékki fépp foo xam ni sañ Béthio kër am na fa kër moom jël nañ ko fa sëriñ bi tegoon daq ko génne ko ne ca kër ga di lëmbe te ñun kat ñi ngi toog boobaak léegi suñu kër yi ñu sëriñ Béthio may ndax may nañu kër fu ne fépp foo xam ni sëñ kërub sëñ Béthio la te ñun ñëpp ñu bokk ko dañ koo bàyyeek ñoom ñooy dugg ñooy génn nu mu leen neexee ñemewuñ faa dugg waaye nag li ëpp mooy nag ñu ñuy fekk suñu biir kër yi di ñu menacer di def ay menaces de mort ak ay violation de domicile ndax à Touba fi nga xam ne dañ ne ah foofu kat euh, titre foncier Serigne Touba la ñu ne xaar ñu njëkkee foofu ba daaw fekk suñuy kër yi ñu Serigne bi jox dëkk tabaxal ñu ko dëkkal ñu fa depuis 2011 ñëpp xamee ñu fa ak sunu njaboot ñu dem fa dàq ña fa nekkoon dajji sunuy kër changer serrure yi dëkkal fa seeni seeni nit ne duñu duggati ci kër ya ñu ne pat ñu ne deetawaay jamono jëlee ñu wool ma fi gendarmerie fii Madinatu Salaam kër gu mag gi ma dugg sama biir kër di nettoyer ñu ne damay provoquer may ñew di way sama serigne ak ñuy jang xassayit ñu wol ma gendarmerie mani pat tay nak tay ñu groupoo mom kiñ nan fam samb ñun min nan serigne sal geul tapé mom nee ñu moy senu kilifa mu taxaw fi ci buntu kër gi di dagg ay nday and ko ak ay rakam ñuy genn ay arme blanche waaw lolu nak mani lu upp touru kon maa ngi interpellé l'état du du du Sénégal waaw di ci jital président bi ak ñi nga xam mooy les autorités compétentes ndax lu ëpp tuuru te ñun kat dañoo am ak njaboot ak sëriñ bi te lépp li mu li nga xam ni moom warlul na ko boppam def na ko waaw teg na lépp ci yoon waaye boobaak léegi ñi ngi ñuy wër ak di wër lu ñu am ak bëgg dal suñu kaw ci rek maanaam mbiri mbiri koppar mbiri xaalis fu xaalis ne fu kër ne ñu ngi koy wër waaw sonn nañu nag réew mi réewum yoon la waaw fi eh, serigne bi dañoo booleeg ay taalube te amna lo xamni xam ni ni ñu sunub soxna ay dayare mom bëggul ñuy xulo bëggul ñuy xex ba rek demb ndeysaan mi ngi waxtaan ak ñun ndax sa su ne mi ngi ñuy soññu ni ñu ngi ñuy ñuy dalal waaw dem na ban ñu bu leen doon tiim sax di leen wax lu ñaawal di leen ci ne leen tekk bu leen bu leen wuy à la provocation waye bu démé nak ba paaka di génn ak di bëgg tepp ci doomu serigne bi muru kër gi pour dugg sama birker, kër te sama xalé yu ndaw yi ay jigen sama doom yu ndaw yi ñi ngi fi ah lolu na na te da fekkoon ma genn kon buñ ma fi fekkon ak yit te taalibe yi seenu xol dañu bëgg serigne bi bëgguñu dara takkuñu waye yit ci niñ ñu yaré tax defuñu dara waaw. jërëjëfati serigne Béthio jërëjëfaat sëriñ serigne soxna Aïda ade Thioune yàlla fi yak lolu tan ak wër ñu santat bu baax.

àndaloon nak sa sëñ Sall Gueule biñu ñëwé ñu ñëwee soxna si ma ñu soxna que je fi temps wax ni j'ai reçu des coups venant de Seydina ensuite bi jakarlo ñom di wax ak comme kër gi dafa amone ay jigéen bëggumoon jël risque ñu après c'est là c'est commencé di saga, di insulter et des menaces de mort à, à notre égard, à l'égard de toute la famille même, qui sont, qui sont logés ici, dans la maison. C'est loolu si le si la ñu arme blanche paaka di def ay menaces de mort ba bëggoon yëg fekk ñu si biir par la suite c'est la riposte sax si la ñu kii bi may naan damay woo gendarmerie c'est la c'est si la qui jël fuite daw dugg seen oto daw non non la non, non, c'est pas la première fois non, non, fi ay ndaw di non, non, non, man non, non, non, un jour non, non, fi ay ndaw def non, non, non, non, non, non, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé donc on ñuy non, justice pour mu buko ko a ah dina jur leneen te kat buñu ni prévenir ñu buñu wax ni on a reçu des menaces de mort et ils ont promis qu'ils vont revenir avec force même celui qui on appelle le khalif, c'est Famsam, plus connu sur le nom de Serigne Gueltapé ils ont promis de revenir, avec force même.